Lamine daa mel ni mbir day waaj a xew de. waaw waaw waaw waaw. dégg naa bokk si ndax jël na avance ngir góor. ku bokk si ndax. ndax boobu ah. lañ koy wooyee. waaw gis nga. waaye bopp si ndax. yow a dégg ci ngir góor. maa ngi nii. mais sax kon lu nga ñemee biir dafa ko Serigne sax. Serigne lan. sàq mee ko sonal joxoon ma mais Zarko koo indaale ndaamaraas. giri mais Zarko pourquoi nga teel yëpp giri pour. parce que tous les grands léegi bàyyi nga Balla Gaye. waaw salut. ba. waay bàyyil sa xel bi ngay fa. soo bëggee eh, Alioune bopp si ndax kaay toog. bopp si ndax la. dimbali ma yow. dimbali ma yow. dégg baax na kay nga am. wala yaa ngi nekk ci kaw nag. fii dañuy liggéey fii ngay wax mu ngi ci kaw. arrêté na ngeen foofu am na fi ñu am aussi. yow yaa war a noppi. fii la war a noppi. fii la war a noppi. Aliou Seydou yow yaa ñëwaate. mbaxalu karaara bi ñu waaw jërëjëf ma bu jàq kay saaga man dama yor saaga baax na. waaye bëriwuñu. mais ki Gris Bordeaux lay bëre. looloo ko fi indi ah. mais mais. mais mais mais Zarko Zarko amatul lu muy prouvé Zarko barki démb la jóge géejawaay daan fa ñaamu ndaw ngeen di ko jooy ba tey noppeegul non mais du question seytaane da kii dama koo xam kii dama ko ngemb baxal mi mel ni bàmmeel mu mbër Zarko Zarko tey yaa ngi alburaax dafa mel ni am na luy waaj a xeeñ wala lu ñor non lii ñor tàbbi la lu gësam ah bon dama toog def émission toog def émission. waaw ma Lutte TV laa doon saane léegi. man loolu moom moo fi indi pour jël avance Gris Bordeaux. Zarko ku la jox avance Gris Bordeaux sax nga cee dem ca Ndeye Fall. léegi bala léegi léegi ma dem dara jënd ci ñaari nag yónnee ko Sikori ànd tànnaa balaa dara xew. ci màggal gi. ci màggal gi ñu waajalee loolu borom daaru waajalee loolu balaa dara balaa kenn di laal ci xaalis bi dërëm ma jënd ñaari nag moo xam nagu un million la wala euh, nagu cinq cent mille yónnee ko Sikori en attendant balaa maa ñëw. mais Zarko Gris Bordeaux mu jaar ak Ama si mën naa. Dóor Balla Gaye de mu tartari man lu ma Balla Gaye. Gris Bordeaux nga ko seqal de Dóor ba R4 bi tepek. man doo du ragal. il faut mu leer. Gris du tapet bopp si ndax bi. boobu si ndax mi la waaye nàcc ak ay toj toj ak ay deret bi ñuy am 16 ans lañ ko dépassé. waaw man xam naa ci dara man fekkee dépassé nañu ay ragal ay ragal lii ju gis jël affrontement bi ak wàll <laughs> waaye bopp si ndax idaale la grand bi naa baraas <laughs> man man de Zarko mi daal giri giri giri giri delluwaat su <laughs> ne la ba pare dama ruux gaa yi ñuy wax bàyyi bopp si ndax yi ay alburaax ay bàyyi mais baay mais kii du bëri Alioune Seye ñun waa grand bi ñu ko nangu. duñ ko nangu. waaw lan moo tax nga ko kii ku mu ko jox. yow ñuy def émission kii woot Gris Bordeaux wooteel boppam direct. ne nañ ma jox nañ ma jox Zarko moom wax ko promoteur non bi wax na ko direct ñëpp di ko dégg giri giri ñëw confirmé loolu amatul lu ñuy wax ñun dañuy ñëw. mais lan ma la su maay signé. Zarko Gris Bordeaux bu jaadu la bu neex la. ah taalibe Maodo. <laughs> ah waaw mais Gris Bordeaux noonu Zarko. taxaw na. yow kay yow lay xaar. yow lay xaar. Jim tey Baye Alla Ndiaye eyal bu raax mais Zarko. mooy man njaago laa pël laa séeréer laa man ay xool nii bu doon bu doon xool nii ci bët rek mooy ragal loo nit kon man rey nañ ma suul ma bu yàgg man mënu ma nekk ragal ndax fu ma juddoo la dëgg la dëgg Grand Yoff dëgg canal ba doo moo tax mënu ma nekk ragal quartier Folatan yu gën a garaaw. yu gën a garaaw maa fekkee fa laa juddoo. man maa fekkee man maa fekkee. Zarko man maa fekkee ñi xamuñu la Zarko est-ce que ñi xam nañ la. non non non il connaît pas il connaît seulement Zarko le lutteur qui fait ses comédies c'est ce maa fekkee mais boo dëkkoon ak man di nga xam ni. waaw doo dara moom képp ku kuñ ko wax nga mer sa problème la. parce que boo dee xam ni doo dara. jërëjëf moom ngeen bëgg waaye doon nga am jël ma rek. waxal ba sa mbër mais Père Bakhoum Zarko ko dolli Ama Baldé avance Ama Baldé ngeen jël ko. ah. mais Ama Baldé ko Franc ah man de moom Franc laa dégg Franc ak Zarko. waaw. Gris Bordeaux. Gris Bordeaux kan ba mujj bëri. Ah, ah, Ama kon da ngay dëpp ah, da ngay dëpp. waaw mais père Bakhoum ma ne bu ñu la joxee ñaari awance ñaari avance <laughs> bu ñu la joxee ñaari awance di nga jël. barke Sëriñ Bamba yàlla baax. yàlla la baax dëgg la. la baax kii bi moom a tëjee pour ñu ko jàppale. kii la jàppale moom a tëjee pour ñu ko jàppale yow xam nga xew. Eh, eh, xam nga xew donc xam nga ne sa kaw laa jëm yow. Eh, sama kaw foog nga jëm Sëriñ Bamba yow yow mënoo bàyyi ko laa jëm. barke Sëriñ Bamba xam nga loolu. barke Sëriñ Bamba xam nga ne sa kaw laa jëm. waaye tey tànk. kaw tànk yow yow daal gudd gudd dañuy tase. yow xam nga loolu. bii laa doon laay lekk ma lekk ma lekk ma yemoon. yàlla yaa xam lu ma lay wax. waaw waaw waaw yemoon ba la way dama ni yow lu muy mujjee mais dama ni. jëndiwul loolu yow tout tànk nga yemoon. xam nga ni sa tànk laa jëm. sama tànk laa gis nga li nga li nga échoué ci Gris Bordeaux man maa koy ñëw exploité. lan laa échoué. daal ba mu ne ngarañ bi nga échoué ci Gris Bordeaux man maa koy def. loolu yëpp yow nañu dem douze heures teel a. Ibrahima yaa gën a xam daal kenn. ba mais yow mais mais est-ce que xeex. mais baax na li ñu tëj di sa xeex ak Gris Bordeaux mën naa ñor. xam nga fii bu dul amul dara. parce que loolu daal leer naa jàpp waaye si ngay def. xeex bu mën a xeex ak Gris Bordeaux est-ce que mën naa ñor. maa xam nga réseau bi dana sotti. dégg nga benn baax la ko amutoon moom baax wóor na di jaaro yu bokk lan lañu jaaro baax lu bokk lu bokk lamb nga man nag boo ko dàqoon tey rek ërtël ko waaw ërtël ko ërtël ko ci man ni foo nga fa ban kër nga yaakaar ne fa la war a ñibbi mais amaa mi nga xam ne ñëpp ko fi bàyyi mag ñi ko ne mag ñi ko ne Franc mu ne la bëgguma mun yarul man ma ci Pikine. laq la ma laqatoo wax ja. kenn bañu ko. ren boo ñuy waxee rek la xale nag dañ ne wax ne boo yaroo ma ci tàngal yi si gune ngay. waaw màcc na tàngal de instant yii. waaw man man xaaral rek da ngay dugg rek man man nga màcc tàngal mais dañuy gune ngay. xam nga ni gune naa ko bu baax. mooy gune ngay yow mi nekk ndongo daara. dëgg la donc daal war nga xam ne léegi ngay. franc mi fi ñëpp bàyyi. boo toogoon ba ba ba ba nawet jëm day court. neex nekk kees nekk ci kees yi laa ñaaxee muy miskit mu neex mu ah. nooy ah. dafa am gunóor. fi ñëpp bàyyi. Hmm. Ama Baldé mi na 60 pour cent la euh, Gris Bordeaux mal ko fi xeex ak moom ngeen di ci xale bu weex te wow comme xeere. loo yaakaar da ngeen toog ak champion bu loo yaakaar laa wax loo yaakaar. bu jël eh, mag moom kenn ko rey comme